suma grand frère euh, euh, Moustapha Tall. ñu lay fay kon bu baax a baax am mbégte kon dalal ko ci suñu plateau et comme nu mu ko waxee léegi à côté de lui nu avons Moustapha Tall di importateur waaye itam di euh, président bu UNACOIS Yessal di président itam commission commerce extérieur ca chambre de commerce bu Dakar ñu ngi lay nuyu itam sëñ bi di la dalal suñu plateau. maa ngi lay fay soxna Khady di leen di nuyu ñu bokkal plateau bi ñoom Dimet Ndaw ak soxna Sële Fatima. ak euh, Cheikh euh, Tidiane Dieye yi nga xam ne ñoom lañ bokk plateau bi maa ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm ah di nuyu aussi suñu mbokk auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre li tàmbalee ci kilifa gi ba ci ki gën a tuuti di góor di jigéen ñun ñëpp ñu ngi leen ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di ñaanal jàmm voilà. di lay euh, fay bu baax a baax di nuyu itam di Dimet Ndaw ak. ñoom la ñuy faral di ondal saa su jeudi jotee di leen di nuyu itam di leen dalal ci émission bi door incha allah léegi léegi. doore ko ak docteur Cheikh Tidiane Dieye euh, dégg nañu euh, njiitu réew bi bi mu jàkkaarlowee ak nation bi mu xamle ne l'heure est grave alors tey nan la ñu mënee comprendre wala sax est-ce que bett na la boo gisee polémique bi tàmbalee juddu ci attribution wu marché yi ñeel aide d'urgence waaw euh, duma ni bett na ma waaye dama koy ñaawlu muy di genre regret bett na ma mooy nga defee woon ni doomu aadama du def lu mel noonu wala sénégalais du def lu mel noonu mais comme xam naa sénégalais xam naa Euh, pouvoir ni mu mel ci Sénégal xam naa gouvernance ni mu mel xam naa ni ñuy yore alalu réew mi démb ak barki démb xamoon naa ni lu mel noonu mën naa am euh, li ma ci am tuuti njaqare muy regret dafa li mu tombel la bu doon beneen situation dama naan rek na woon fa woon waaye bii am tey euh, addina yépp daanaka loof ndax coronavirus bi suñu réew bokk ci réew Afrique yi xam ne àddina yépp nangu nañu ni bu ñu yàlla suturaalul bu fi yàggee tuuti rek suñu économie dina fa jaare lompoñ te dootu gaaw a jóg bi président de la république taxawee woote sénégalais yi ni leen boo koy déglu dafa wax sax li ñuy wax langage martial daanaka euh, euh, commandant buy dem guerre la ndax ay moowu guerre ay crise ay nous en guerre da ngay dégg sax ay ñu koy wax sénégalais yépp jóg ku ne la nga jàppoon ku àndoon ak moom ak ku ànduloon moom ñépp ñëw ni ko tey drapo Sénégal rek la ñu gis république rek la ñu gis nu ñuy def ba sauver suñu réew fexe ba ay bakkan duñ ko ci ñàkk waaye ñu fexe ba koom-koom bi ñu jàppale ko mu woote ni gouvernement bi kese dina lot ci gérer mbir mi parce que dafay metti effort financier bi mu laaj day metti gouvernement bi du ko attan na ku ne def loo man ñépp nangu ko ku ne dugal sa loxo sa poos ñi ko mën génnee teg ci taabal ji mu dem jël ci budget bi loo xam ne lii tamit lu am solo la ndax la ñu jële ji ci budget bi dafa waroon demaat ci askan wi ci yeneen i wàll ñu jël ko dugal ko ci fon bi mu woo communauté internationale pour ñu abal ñu xaalis leb la parce que nag dañu koy fay ñun ñi suñuy doom ak ba suñuy sët dinañ ko fay ñépp d'accord ci mu ne nag jafe-jafe yii fi nekk dama soxla di mën a décider muy gaaw parce que bu ñuy jaar ay assemblée ak ay loi day metti may leen ma loo xam ne lii lu ma bëgg rek dinaa ko mën a def ñu ne ko ay la yëwan jëlal mm-hmm. la defal loolu jox na la lépp bi muy def discours am 3 3 euh, avril mu ni fonds bi nga xam ne teg nañ ko mu di junniy milliards xaalis bu bare la mu ne dinañ ko saytu saytu bu rafet dinañ ko teg ci ni mu gënee lii koy gën a firndeel danañu teg benn comité boo xam ne comité de pilotage lay doon moo koy saytu loolu nag ci ko am dégg-dégg bu ko waxee rek mooy bu ñu commencé teg fonds bi bépp xaalis boo xam ne ci fonds bi lay jóge te dund ji dund yi ñu jënd li ñu jënd si ceeb ak ay yooyu di ko jox askan wi ci fond bi na jóge fond bi dañ koy constituer pareegul mais loolu ci fond bi la jóge mu ne woon nag lépp luy jóge ci fond bi comité de pilotage boobu moo koy saytu loolu mooy même bu ko waxewul noonu loolu mooy principe bi mhm. ñoom ñu commencé comité de pilotage bi taxawul ndax moom moo ko waroon taxawal waxoon sax na waxoon na ni comité bi danañu def mu am waa état bi am assemblée nationale mu yokk ci lu am solo mu ne ci biir assemblée nationale daf ciy woote sax l' opposition parlementaire moo di toute sensibilité yi nekk ci biir assemblée ñu ba xam nga ku dem ba ne dina boole opposition mooy xëy na ne nga kat bëgg naa mu leer dinaa ci boole itam société civile mu boole loolu lépp wax ko. li ñu doon xaar ci moom mooy ba mu ci tegee fan wala ñaari fan rek ba ñu xalaatee ni war nañu yóbbu ceeb bi war nañ ko jëndi war nañu joxe marché war nañu tànn. rek dafa waroon teg comité bi ba pare parce que loolu li jaadu mooy démarche bu normal ci boo bëggee lu ñu teg comité bi boole ci ñi ñu ci war a boole génnee borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu ceeb bu fekkee ceeb dana ci am ñi nga xam ne ci wàllu usine ni ñu koy defalee la ñu bokk ñu dugal leen ci bépp pàcc boo xam ne mu ngi ci réew mi te am nañ ci xam-xam ñu boole leen ñooñu bu ñu toogee ñu ne leen nag dépense sangam la ñu bëgg def bu ñu bëggee jënd ceeb ñu war a génnee 69 milliards du xaalis bu tuuti comité bi moo waroon saytu ni kii la war a tànn. conditions yi lañ ko war a tànni critères yi la ñu teg même su fekkee dina gaaw waaye dana leer ci boppu ñëpp loolu nag comme defuñu ko ba commencé joxe ay marché ñu dem ba ci kanam gis li ci ne mu di loo xam ne tey na xelu ñëpp képp ku am xel rek sa xel tey na ci. ndax gis nañu ci euh, dañu mettre la charrue avant dafa dañu mettre la charrue avant les ba maanaam daal li ñu waroon tàmbalee tàmbalee wuñ ko moo indi nag lii ñu nekk tey mu di lu lu lu mënoon a ñàkk ndax. jamono ji waruloon am tey ay xëj ak seen wala ay xaarma yàlla wala débat boo xam ne bi dafay débat bu bokkul ci affaire coronavirus te nag loolu mu doxalee moo tax loolu man a am mm-hmm. euh, merci Khady ma lay nuyu bu baax di nuyu Fatima di nuyu suñu gan yi Cheikh Tidiane ak euh, Moustapha Tall alors wax nga ko que ni yu bëri yi waroon a jiitu defuñu ko alors est-ce que loolu tey euh, ci loi d'habilitation bi nga xamante ne ni kon dañ ko def ci ak yàkkamti wala crise bi dañ ko gérer ak émotion parce que gis nañ ni président Macky lépp lu mu jël société civile wax nga ko ñëpp dañu ci ànd ak moom dafa mel ni euh, sentiment yi émotion yi moo dem ba jël le dessus sur le réalisme waaw man man duma ko sax du ma ko du ma ko def wàllu émotion ndax boo ko defee ci émotion rek danga nga leen di wutal circonstance atténuante te man dama ko nangootul léegi parce que boo dee jiite réew nekk chef de l'État li mu am moom ci ay kuréel ak xam-xam ak ay conseil ak jumtuwaay yu ñu ko jox waruñu nangu ci moom muy dem ci émotion parce que bu fekkee moom nee nañu ci guerre la ñu jëm te mooy suñu commandant suñu général ñu topp ci suñu ginnaawam mais sa général bu ndee dem ak émotion ci guerre musiba dal la dina la yóbbu foo xamul. émotion surtout par rapport rek ñenn ñi nga xam ne demoon nañu wuy ji woote bi donte am nañu ba ñu génnee pare tamit émettre nañu ay réserve mais dem bi ñu demoon te déjà loi d'habilitation boobu waxtaanee wuñ ko ba mu leer surtout ci côté waxee. loolu loolu sax dafa waroon tax ba bu demee ba war a am lu muy tëral ña mu déglu woon woo leen présidence mu di société civile di ñoom ñëpp waxtaan ak ñoom balaa ngay def benn jéego jëm ci loolu nga mën a leen dégluwaat te may fàttali ni loi d'habilitation bi nga xam ne jox nañ ko ko ñu ne ko président tey jox nañ la bépp pouvoir loo bëgg a dogal rek mën nga ko dogal loi bi mayu leen benn yoon ñu jalgati yoon pouvoir la ñu ko jox waaye joxuñu ko pouvoir jalgati yoon te bépp xaalis boo xam ne fonds public la ressource parce que fonds bi ñuy wax du xaalis bu daanoon rek xaalis public la suñu xaalisu réew la kooku bépp dépense boo ciy def donte moom nee na euh, code des marché publics dind nañ ci yooyu ngir mu gaaw teewul principe yi nga xam ne mooy doxal marché public dafa tegu seen kaw marché bi na transparent na nga ko jox ku ko war a mën a yor koo xam ni kii xam nañ ko ci secteur bi nga koy jox ak yu demee noonu léegi nag bi mu demee defuñu ko moo commencé tey xel ñu ne nag ñii est-ce que jàppuñu nit occasion la ñu enrichiraat ay nit na woon fa woon et li tax mu bon loolu moo di tey sénégalais yu baree bare yu nga xam ne duggoon nañu ci xeex bi di ko dimbali bu ñu gisee lu mel nii dañuy daal di rocc seen loxo nga mhm. xam ni ànd bi mu ci àndoon te mu rafet te loolu rek moo mën a tax ñu daan coronavirus da ngay gis ñu bëri commencé bàyyi ni kii kat dafa commencé ñii di joxe seen xaalis moom mu koy jël di enrichir ñeneen te loolu yaakaar naa ni kenn du ko mën a nangu bi ba ñuy fal Macky Sall dañu exigeant woon trop déggoon nañu seeni préoccupation muy bonne gouvernance transparence tey bu ñu gisee nii euh, mbir di doxee euh, ñu gisoon ni président Wade aussi tamit gisoon nañu doomam est-ce que tey nekkuñu di dundaat le même scénario oui euh, sore sore wuñ ko sore wuñ ko te comme ñi jeexalaguñu mais yoon wi ñu jaar yépp xam nga tey moo tax ma ne la dafa am lu bari lu nit ñi jàppoon bàyyi ko ndax woote bi mu woote ndax situation bi mais comme comme ni ma koy faral di wax rek on ne devient pas vertueux du jour au lendemain nit ki mënul tàmm di def mauvaise gouvernance di def ay ay njombe ay luxóor ci ay marché ba démb ak barki démb tey lii ñëw mu bàyyi ko dañu jàppoon ni rek moom président donte dina am ñu koy bëgg def ci biir gouvernement am moom moo waroon ne ah tey kat sénégalais yi sas nañ teg nañ foo xam ne jox nañ ma loo xam ne man maa dul nangooti mhm. yenn yi mën koo am parce que contexte bi moo tax waaye mauvaise gouvernance tey gis nañu ni la nit ñi foogoon ni dinañ ko génn dafa mel ni ñu ngi ci ba léegi te li nga fàttali ndey di mi am solo la Sénégal am na ay jaar-jaar bi fi nekkee Fesman gis nañu li mu indil réew mi ci ay jafe-jafe alal ju dul jeex la ñu luubal mu jur fen ñu ñëw annonce gis nañu li mu indi tey bu ñu ñëwee duggaat ci lii li muy indi li tax muy jeexal xolu ñi xam ni réew yi di doxe ci àddina mooy tey booy xool suñu réew Afrique yëpp a ngi wol euh, toltolaan ci àddina bi fu ne ñu ngi dem di ñaani xaalis di leb di wut ku ñu baal suñuy bor waaye ñooñu ñuy dem ci ñoom pour ñu baal ñu suñuy bor ñooñu ñu ngi suñu réew seen ambassade a ngi fi ñu ngi ñuy déglu bu ñu nee mais africain yi kat boo leen baalee bor yii itam dañu koy sàcc boo leen mayee alal ay nit a koy détourné du dem ci seen askan ñooñu duñ ñu naw duñ ñu respecté te duñ ñu duñ ñu mës a teg fi ñu war a teg donc ñooñu boo nekkee njiitu réew nekk ci période guerre ci lu demee nii da ngay jël éthique ak morale rek nga jiital ko tey képp ku nekkoon ci ñooñam ku ko jege donte loi terewu ko goroom euh, yor ko moom euh, lu rafet ak dégg-dégg ak bon gouvernance waroon ndax mu éviter ko képp ku ko jege ci gouvernement am tey waroon na fexe ba teg comité de pilotage boo xam ni danaan sama benn ministre du ci bokk wala bu ci bu ci ministère bi di bokk itam ay technicien mu dem fexe wut nit koo xam ni kenn du mën a laam-laamee am na ci réew mi ñoo xam ne ñii am nañu expérience ci gérer lu mel noonu am ñu xam-xam bi te seen démb ak barki démb xam nañ leen ci njub ak lu mel noonu bu leen ko joxoon dinañu xam ni kii kat fa mu bëgg a jëm baax na mais ni mu ko conséquence dinañuy ñëw ci euh, ci kanam incha allah mais bu ñu nee atribution marché li ci gën a fës en ce moment mooy marché bi ñeel ceeb bi Fatima ma mhm. bàyyi laa ak Moustapha Tall dëgg la maa ngi leen di nuyu alors euh, monsieur Tall euh, comme ni ko Khady waxee gis nañ ne ni ki rek fan yi lu toll ci 17 ou 18 milliards yoo xam xamante ne génnee nañ ko jox ko benn homme d'affaires ci wàllu ceeb bi yéen ngeen nekk ay producteur ñu gis tamit ne benn sénégalais moom mooy jorogum li nga xamante ne moom mooy ñeel wàllu marché bi muy Mandiaye Ndiaye yéen ndax dañ leen associé wul ci mbir mi wala naka la demee ak naka ngeen gisee actuellement li nga xamante ne moom mooy marché ceeb bi. Ah, jërëjëf <clears throat> Fatima donc comme ni ñu ko waxee rek euh, ni ngeen ko gisee noonu la demee te wax nañ ci waxaat euh, euh, marché bi bi koy xalaat. amul euh, ak benn communiqué. Mhm. wootewuñu réunion waxuñu kenn loolu dañoo toog rek dégg ay rumeur ñu naan état bi dana jënd cent mille tonnes ci wàllu ceeb pour yóbbu ko ci àll bi. ñuy dem di dem ba mu yàgg affaire bi di persister persister ba mujj man ma man ak lu man di xew duma ci bopp. parce que comme yëgaluñ ñu ko préparé ko man dama dul cautionné sax loolu parce que boo amee marché bu mel ni marché Sénégal nga xam ni li ñuy li ñuy jëfandikoo dañ koy importé te loolu danger la sax pour réew bi te lu wax nañ ko waxati waroon nañ fexe ba am autosuffisance ba bu ñuy jënd du ñu am benn jafe-jafe waaye loo xam da nga koy jéggaane fi nga koy jëlee ji bu leen neexee bloqué yoon wi bu leen neexee bu lu mel ni amee ñu ni kenn du chargé kenn du déchargé kenn dem kenn du dikk te loolu moo am actuellement ñu am stock boo xam ne yàlla dimbale nañu ñu am stock bu lu bon bon stock de sécurité donc stock de sécurité bi dafa am fu mu yem loo xam ni dafa élastique maanaam mënoo indi yenn quantité yi di ko def stock de sécurité lu koy financé parce que bi ñuy libéraliser état bi lu mu doon xalaat ca jamono yooyu nan la ñu faxee ba assurité di assurer stock de sécurité mhm. pour mu koy jënd maanaam di koy stocké pour en cas de défaillance des importateurs mun soo ko génne mhm. loolu lañ doon xalaat à l'époque mhm. mais xalaatuñu woon organiser bi responsabiliser importateurs yi ñu def seen liggéey ni mu waree mosuñu ñoo wóolu mosuñoo compter mosuñoo yaakaar ne ñu war nañ mën am dara wala war nañu mën am dara mën dara mm-hmm. loolu moo waral ñu jàpp ne ni ñu jàppee ba ñu accès ci lu mel ni wax la waxuñ ca ñun parce que nit ki boo ko considéré maanaam jox ko cëram li mu moom da nga koy jox. Mm-hmm. maanaam boolewu leen ci li nga xamante ne moom moo ñeel ci waxtaan yi. consulté wuñu sax. d'accord mais tey amul appel d'offre amul consultation. ok donc dañoo def yaama neex la monsieur. voilà comme def maanaam yëfu yaama la ñu def ci li nga xamante ne moo ñeel bi nañ ki nga xamante ne moom moo di euh, le commissaire bi yor sécurité alimentaire wax na ne jiitu nañ fi nga xamante ne moom mooy euh, ca tool Toll gisuñu fa lu dul 900 tonnes yoo xamante ne moo di ceeb te li ñu doon di wax moom moo di autosuffisance bi ci wàllu ceeb te gisuñu ko ci Sénégal yéen ñi nga xamante ne yéen itam ay da ngeen di yëngu ci mbir mi bu baax a baax lan moo ciy seen cër euh, ci li nga xamante ne moom moo ñeel Sénégal ci wàllub ceeb boobu. autosuffisance bi wala. Mhm. ci wàllu autosuffisance bi moo tax ne nañ dañ foofu lañ njëkkee quoi balaa ñuy dem ci li nga xamante ne moom moo di joxe marché bi ci ñeneen ñi. mooy li ma njëkkee léegi dama ni. Mhm. li waroon mooy bu ñu doon demoon bay def lu mel nii dañoo war a am au moins quantité yoo xam dañ ko produire muy lu lu jógee ci réew mi ñu jënd ko jox ko waa réew mi mu jëriñ réew mi. Mhm. mais waxuñu nga compter ci ay importation ñun ay sénégalais lañ buñ sañoon Sénégal mooy gën ci réew yi. ak lu ñu fi mën di dajit mhm. dañuy toog muñ jéem a seet lu ñu changé situation yi 2003 Ablaye Wade recevoir na ma li ma ko wax autosuffisance et pourtant man importateur la du ma béykat mhm. parce que li may privilégié mooy intérêt général mhm. bu ñu organiser affaire bi ba ñu mën a am autosuffisance man mais damay nekk béykat wala ma nekk rizier di décortiquer wala ma defi leneen mais waruma sax mais commerce bi sax boo ci nekkee di ci liggéey mënoo ci ba am bénéfice da ngay bàyyi defi leneen marchandise bi ngay indi ba ci mën la génn da ngay bàyyi defi donc c'est pas une fin en ni euh, euh, man oh, ko nañu defar affaire bi pour ñu am autosuffisance dégluwuma 2003 2008 crise bi ñëw te bu mm-hmm. a perdu léegi il faut nga jox ma solution parce que yaa ma waxul loolu loo ma kenn waxul. léegi xoolal ma solution ma ne ko may ma mu may ma ma xalaat def sama kii daal di ñëw ànd ak ministre commerce jébbal ko li ma wax li ma xalaat mu ni non nañ ko jox benn comité comme benn plutôt cabinet d'experts ñoom ñu xalaat ci defal ko rapport vérifier confirmer li ma wax cabinet banque ñu ngi may dégg Amadou Niang moo doon ministre commerce ñu ngi may dégg 7 millions lañ fay lañ fay cabinet boobu pour loolu kon ñun yàgg na ñoo liggéey pour une autosuffisance mais du ñun dogal li ñu man mooy am nañu xalaat dañuy dem ci autorité yi wax ak ñoom la war a wax ak ñoom pour mbir mi changer mais bu ñu ko bëggul def lan lañ ci mën d'accord alors ci bi bu ñu déggee say wax par rapport à cent mille tonnes que euh, mën nañu xalaat ni risque pénurie mën na am bien sûr parce que stock bi nga xam ne moo fi nekk di stock de sécurité nga jël d'un coup cent mille ko ci ay magasin war ko jox les plus démunis mais ñeneen ñi nga xam ne bokkuñ ci catégorie boobu ñooñu bu ñu bëggee seen ceeb ñu leen ceeb amul problème du yaa ngi résoudre benn problème mais yaa ngi créé beneen problème te loolu bi ma déggee affaire bi dama ko bind le ministre comme le ministre de l'équité là Mansour Faye ni ni ko ni nga ni ma dégg noonu nga bëgg a jënde affaire bi boo ko defee du baax donc noonu boo ko defee dañuy am problème mooy. est-ce que tontu na la. tontuwul sax ampliation bon xëy na peut-être dama juste parce que man fi may bindee fi ñuy dépouiller presque benn la ma bind. dem ànd ak dem biir ministère am fekkuma ko ma daje ak secrétaire général am jox ko lettre bi wax ko li nga xam ne mu la xalaat. verbalement yaa ngi wax ni fi ñu dépuyee. kon amoon na appel d'offre wala amul appel d'offre. non ñun xam nga appel d'offre bi ñun ñëpp yëguñu xam nga bu appel bu normal. en fait loolu laa bëgg a comprendre am na appel d'offre non dama ni du appel d'offre c'est-à-dire amul appel d'offre. parce que yaa ngi tudd léegi dépouillement. non xam nga ñu nga xam ne peut-être jege nañ leen wala je ne sais pas par quel moyen leen ko waxee mais am na daal ñu postuler joxe ay proposition mais mais appel d'offre boo xam ne amul benn conditionnalité ça veut dire que yow da ngay ñëw rek bind sa lettre ni man naa leen a jaay ceeb bi tel amul benn référence booy joxe amul benn papier de justificatif amul dara amul caution amul dara loolu du appel d'offre appel d'offre da ngay joxe say qualité da koy joxe en terme de document joxe say surface financière joxe say preuve ñu xam ni yow mii am nga capacité bi nga soog a mën a postuler mais su fekkee dañu ñëw rek ubbi ku ñëw rek def sa proposition. yow joxoon nga proposé parce que loolu laa ni man du ko cautionné parce que baaxul. yëgoon nga koy yëg fekk na presque mu agsi bi koy yëg boobu fekk na presque ñu naan euh, suba la ñuy dépouiller euh, yooyu. maanaam jeudi bi laa ko yëg. Mhm. je ou léegi yow boo déggee ni jël nañu marché bi jox ko sax euh, koo xamante ni ci jaayum sandwich lañ ko gën a xam alors tey loolu la la lay def yow mi nga xamante ni da nga yàgg ci ci ci milieu bi. Ah, mais duma du ma def euh, lu bari ah parce que yéen peut-être xaj na xamul leen ñu jaar ak li ñu def ba agsi fii mais ñun ñi nga xam ni lu ne daj nañ ci secteur bi lu ne ci injustice bu ne en commençant par Ablaye ba tey. jël lañ ma dugal ci kaso bi ma dara créé un dossier de toute pièce dossier de douane ni man dama amee un différentiel de péréquation sur du sucre importé différentiel man fay naa douane fay péréquation mais différentiel boo xam ne dañ ko imaginer def calcul daal def seen PV daal di may jël boole maa benn juge mu dugal ma ci kaso en otage pour ma génn foofu il a il a fallu ma fay ma fay un milliard fan la commerçant yi nekkoon fan la organisation syndicale yi nekkoon ma tëdd fa deux mois kenn waxul dara banque bi ñëw ni ma ah foog nga fay pour génn boo fayul doo génn sa liggéey dana yàqu nangam ak nangam te yow sunu client nga amel na ñu ngi misé ci yow sa avez une ligne de 4 milliards dans cette banque là ñu fay 1 milliard ma génn bi ma génnee ligne bi banque bi da koo retiré sans bi te ñoo ma fay fayloo ma génn ma génn ñu retiré ligne bi maanaam bu ñu retiré li ngay doxee kay da ngay daal toog. tey looy xaar ci président Macky Sall li ma doon xaar ci moom li ma doon xaar ci moom moo doon mu redressé woon situation yi teg affaire bi ci yoon teg ko sur les rails la daan la daan yaakaar en 2012 2012 daje nag moom entre les deux tours ali naa ko wax ko mu ni ma bu fayo faloo dana régler problème bi nga xam ne moom la moom laa Ablaye defoon ak injustice yi nga xam ni moom la def parce que loolu laa ko demandé dama ni ko yow tey da nga dem deuxième tour ak Wade mais jàppal ni da ngay gagné parce que dañ laa tooñ te yàlla bëggul kuy tooñ léegi nag yaa ngi dem ak moom deuxième tour te barki dem rek la sa parti bi juddu bul sikki sàkkan da ngay waaye boo gagné na nga xam ni da ngaa war a régler injustice yi Abdoulaye Wade def yëpp ci commencé ko ci man parce que bi ñu may def loolu yow premier ministre ga donc xam nga mbir mi kon ubbil dossier bi su fekkee def naa dara ci li ñuy wax waxuma la ñu ñu daan ma mais nañ dàgg sama bopp su ma deful dara nañ ma delloo sama alal ak la ca war a ànd comme ni ñu koy war a defee parce que boo tooñee nit ki da nga koy dàmp da koy delloo alal la ba pare dàmp ko comme ni ñu ko defee ci bictigo ko ay visa lañ ko doon def defloo mais visa yi sorewul ñu arrêté ko mhm. mais pour moom <laughs> pour pour régler problème dañ ko compenser de 14 milliards di euh, lan mooy investissement wu étiquette yi ñuy collé ci machine boobu di euh, collé euh, defar ay étiquette ñu koy collé ci ci passeport loolu lan moo ci extraordinaire lu tax ñu war laa compenser de 14 milliards mais aujourd'hui loolu moo fi am donc yii doo dund yooyu yëpp gis yooyu ba pare lii di la di la di la jaaxal man kay dama ko doon dimbali di ko wax conseil pour mu bañ a daanu ci kàmb gi moo doon lii nga xam ne moom moo xew ni tey ñëpp ngi wax te bu fekkoon déggaloon na ma ba mu jotee lettre bi arrêté affaire bañ a génnee list bi kon lii du ko dal voilà ce qui euh, euh, montre que duñu apprendre de nos erreurs un peu bu ñu dellu see ci ci docteur euh, sànq maa ngi la doon wax ñu ngi woon ci conséquences yi mais causes yi tey est-ce que ñëpp nekkuñu coupable parce que dañu gis ne que xëy na njiitu réew bi instant bi di buum di buum di def lu ko neex moom la ñu teg au banc des accusés mais dañu seetlu ni que bi Covid bi duggee ci réew mi ba tey ñëpp dañu def benn say bootu ci ginnaawam kenn en fait amul dogal bu muy teg ba kenn wax le contraire mm-hmm. est-ce qu'on sax yéene euh, dafay réew day toll foo xam ni nit ñi mu ngi mel ni guerre parce que ñoom ñoo ko sax wax gis nga Covid bi ni muy nërmeelee ay dëkk yoo xam ne ñoo ñu ëpp fuuf doole bu demoon ba law ci suñu réew mi waxatuñ ko bu bu génnee ni lii kat lu metti la nañ ci jàpp ku nekk war ngaa indi ñi ko mën a jàppale ci wàll wu mu mën a doon ñu def ko loolu ñi nga xam ne mënuñoo ñëw ci liggéey bi waaye mën nañu indi seen xalaat. ñu bind yónnee ko wala ñu wax ko ci rajo yi wala ci télé yi ñu dégg ko ku ne daal war nga am ci effort de guerre bi contribution boo ci am li ñuy xaar nag ci moom. Eh, li ñuy eh, xaar ci njiit contribution ça veut dire jox ko leng yëpp. après ah, dem toog croiser les bras par exemple ni député yi def. maa ngi wax ni loi d' habilitation la jox ay pouvoir dañ lay jox ay ay kattan yu yu rëy rëy waaye joxuñu la droit nga nga violer loi boo violer loi nga def loo xam ne lii lu jaaduwul dañ koy wax te loolu mooy lii am fi mu ne nii. xam nga bu fekkonte ni dañu ko ni jox nañu la pouvoir habilitation nga mën a seet urgence te urgence bi ñuy wax bi tax ñuy jënd ceeb bi mooy li Moustapha di wax sànq nee nañu dañu yàkkamti il fallait que ñu jënd ceeb bi dem rek tànn ay nit rapidement mais urgence boobu amul li ñu doxal tey wane na ni mënoon nañu amaat quelque jour jël temps wu teg comité de pilotage buy saytu ndax tey boo xoolee bi ñu commencé joxe ceeb beeg léegi dix mille tonnes rek la ñu yóbboogum. Mhm. ci lu mille tonnes yu ñu war a yóbbu. dix mille tonnes ñu yóbbu mooy bu ñu ko jàppoo noonu dina toog fii ñaari semaine sénégalais yu bari dul ñu jotagum ci ceeb bi mais ñoo ñu nga doon wax urgence urgence amul kon amoon nga temps wu nga toog xoolaat liggéeyaat indi ñi nga xam ne ñoo ko war a dogal ñu dogal ko moo tax li tax ma ne la seetaanuñu ko bi ñu gisee dogal yu njëkk yi parce que nag bi ñu ko joxee lépp dañu am yaakaar ni comprendre na enjeu bi te dina ko doxalee noonu bi ñu gisee mu def jéego mooy li ñu koy wax mauvais départ nga def boo defee mauvais départ rek da ngay dellu si da ngay dellu si defaruwaat doog demaat moo tax ñu ni ko li nga commencé ci ceeb bi jëmul kër déjà option yi jël ceeb boo xam ni teg nga ko mu jëm ci seen région Sénégal yépp nga ne dama koy transporter transport bi même bu fekkoon un milliard la tey dégg ngeen dégg ngeen fi six milliards ngeen dégg mu am ñu génn ci ñoom ni déedéet matu ko deux milliards nangam la mu am ñu ne un milliard huit cent keneen ni un milliard cinq cent même bu doon un milliard kese ëpp na ci ndax mënoon naa ñàkk parce que ay nit ñu yor camion ci biir réew mi di di transporteur génn nañu ni ñun kat lii nga woote président jaral nañu ko danañ la jox suñu ay camion te doo ñu fay dara bu fekk mais ñooñu dañ leen dégluwul dafa mel ni am na ñeneen ñu ñu bëggoon jox marché camion yi ba tax ñi ne kii ne la dinaa la abal ay camion doo fay nga bàyyi ko fa dem jox marché bi keneen koo xam ne da nga koy fay même bu fekkee ni da nga koy fay bariwul déjà xaalis boo sànni la donc bi ko nit ñi déggee nit ñi wax nañ ci moo tax ñu ne leen attention monsieur le président yoon wi nga jël baaxul te boo ci continuer non seulement objectif bi duñ ko atteindre maanaam réew mi nit ñi dinañ toog soxla ceeb bi duñ ci jot parce que dina jël temps. Mm-hmm. waaye option yu bare yoo xam ne boo indi woon ay boroomi xam-xam ñu toog saytu ko mën nañ la génneel yeneen xalaat mm-hmm. tey bu ñu jëloon ñu ni xam nañu leen ko proposé amul benn famille tax famille yi ñuy jox ceeb yépp xam nañ leen xam nañu seen adresse ci région yi xam nañu seen numéro de téléphone ñoom ñépp boo leen defoon transfert ci xaalis ay option yu bare la. boo leen defaloon transfert nga ne ku nekk jox nañ wala leneen cent mille francs avantage bi muy am mooy dafay dem jënd ji ko ci boutique ba ca koñ ba xaalis bi dafay daal di ubbeeku wasaaroo wala nga jël option boo xam ne da nga naan Moustapha Tall am nga stogu ceeb bu bari ci dakaar fexe leen approvisionner leen ñu grossistes yi ci réew mi yëpp parce que région boo ca dem am na ay grossistes yu fay jaay ceeb ngeen duy magasin grossistes yi ba mu fees su ko defee nit ñi bu ñu jotee seen xaalis jënd ji ci ñooña doo soxla di traverser réew mi yëpp ak ay camion yu dul jeex tey fi mu ne nii et puis image bi sax dafa rafetul gis nga gis nga rangale ay camion boo wonee seen image bi ngeen wonee léegi président di dox ay ay saaku ceeb tiim ko mais bu ko bu ko nit ñi seetaanee bitim réew tubaab yi ak ñooñu dañ naan mais xoolante leen africain yi <laughs> mel ni ay nit ñu xiif temps wu Éthiopie ngeen baal ma bi nit ñi xiif bi ñu leen di jox ceeb réew dafay toll foo xam ne dafay dépassé loolu <laughs> bu ñu leen defaloon transfert ñu jëndi ko te ki nga ko jox dana dem ci boutique bi muy jëndee kon ku ci ne da nga am dara te doo fi def transport yu dul jeex te moo gën a gaaw. Mm-hmm. yooyu nag boo waxtaanu ak nit ñi doo ko def. Oh, ci waxtaan boobu gis nañ ni am na sax yenn leader yi nga xamante ne dañoo bokk ci mouvance présidentielle bi ñu ngi naan am na carte blanche euh, jox na ko loo xamante ne de tey ji war naa mën a def lu ko neex ci li nga xamante ne moom moo di euh, yorin bi est-ce que loolu tamit. Euh, c'est loolu du wax yenu maanaam si si parce que dégg nañ nga dégg carte blanche ku ko wax rek da nga xamul luy état da wax lu la neex. Mm-hmm. habilitation par par par rapport ak loi mm-hmm. la benn yoon nga violer loi. tey bu fi violé woon loi danañ ko topp ndax loolu ministre bu fi violé loi bu ñu la waxee nga ne président moom ma ko defloo danañ la topp ndax loolu ku jël marché jox ko ci noo ko warul joxe danañ la ci topp parce que alalu réew mi danañ ko saytu ji habilitation nag loolu na leer ci bopp ñëpp jox la kattan yi dafa bëgg mu gaaw c'est-à-dire bu amul woon boo bëggee def yenn dogal yi dafay bind def projet gouvernement bi adopté ko ñu yóbbu assemblée mu jël temps laata député yi di ñëw ñu koy voté mu jël ay semaine ñu ne ko may nañ la loo xam ne yow boo ko fanaanoo rek monsieur le président ni ah suba kat bëgg naa def dara pour askan wi boo xëyee le matin rek joxal sa secrétaire yeeg yooyu ñu bind mm-hmm. bu ñëwee nga signé balaa di loolu di ndogal di loi loolu rek lañ ko jox mm-hmm. mais bu ko bu ko gis nga gis nga moo tax may wax ne bu ñu deful attention bu bu liy jeexee mbiru Covid bi réew mi dinañu dugg ci beneen scandale boo xam ni mën na sax am ay kiis judiciaire parce que nag gis nga argent public moom argent public rek la loo ci mën a wax budget la nekkul ci suñu budget bii nekk ay quatre mille et quelques milliards mais une partie budget daf cee dugg ay sénégalais génnee seen poche te loolu mooy mooy tey li war a gën a euh, daw yaramam askan wi gis naa ñu joxe ay dix mille francs ñii cent mille ba ci un milliard ba lu waay mën mais alal jooju waruloo ko jël ci ay sénégalais di ko enrichir yeneen sénégalais loolu moom la xel nanguwul. alors responsabilité député yi ci coow li lan la war a doon parce que euh, Kaaw Diop si ñëpp xam nañ fu mu bokk assemblée nationale mais li jaaxal nit ñi mooy ba léegi dégguñu sax hémicycle bi ñoom si seen bopp dénoncé loolu parce que euh, ñi seen xam-xam màcc ci wàllu yoon yëpp tey gis nañu ni violé nañ code électoral bi te bu fekkente ni Diop mi ngi exercer yeneen activité tamit war na ko am autorisation assemblée nationale. absolument loolu tamit ñu ngi leen ciy xaar parce que nag ñoom ñoo joxe boobu habilitation ñoo ko voté jox ko président loolu taxul ñoom seen sañ-sañ fay parce que assemblée dissoudre luñ ko existé na mm-hmm. nee nañu président te euh, habilitation dañ ko encadré nee nañ ko lii ci biir périmètre nga mën a dogal boo jalgatee yoon député am na droit waaye nag xam nga ni doo xaar ci député wu pouvoir bi bu ànd ak moom ñoom ñu koy contesté xëy na député wu opposition ñoo ko mën a def te ñoom am na si ñoo xam ne bi ñu yóbboo loi bi nanguwuñu woon sax ni loi bi bu baax la mm-hmm. donc xëy na ñooñu ñu ngi xaar ci ñoom aussi askan wi mu ngi leen di woo dénoncé rek du doy mais nañu ko interpeller nañu wax génne ay proposition pour delloo si waat président ci ligne de départ bi te li ma leen di wax moo di comme am na dépense yu ñu jot a def te ñëpp xam nañu ni jaarul yoon à partir de maintenant bu ñu nangooti benn dépense ñu def ko moom président loolu moo ko war a décider nee na ni na ngeen ko suspendre tant teguñu comité de pilotage bi nga xam ne moom moo ko tudd comité de pilotage bi génnul feneen fu dul moom ci discours am mu ni bëgg lu leer tax na dinaa teg comité de pilotage def ci état def ci assemblé y compris opposition et def ci société civile waaw moom nag mën na ko teg bu ko neexee suba comité bi am mu ni leen bu ngeen di joxati 15 na jaar ci comité bi ñu xool bu fekkee dañ ne Moustapha danañ ko jox ceeb ñu ne Moustapha mi mooy kan lu tax ñu jox ko ko bàyyi ndey dime fan la jaar ak naka la ko jaayee as ba mu leer parce que nag bu fekkente ne réew mi amul doole alal ji bariwul ñu ne pour ndimbal la ñuy def hmm. mais doo xeet dara. xaalis bu ne da nga ko war a yaxanal pour que mu mën a am njëriñ ci biir askan wi. et justement côté boobu sax Moustapha gis nañu ni que en mille amoon nañu cas bu nduru bi boobu su wàdd la woon ñu doon ah. séddale ay yëf ci montant bu euh, tolloog 52 milliards bu ma bu ma juumul. Ah. Euh, sànq ñu ngi doon wax qu'on n'apprend pas de nos erreurs est-ce que tey bu président Macky Sall dertuwul ginnaaw ci anam bi mu commencé jëm ci séddale ceeb bi demuñu ci échec. annonce ah bu dalul gannaaw. ka moom bu dellu gannaaw dana dana am problème problème dana am ndax euh, déjà ñëpp gis nañ ni ñii ñu ko jox waruñu leen ko jox te it danañu jaaxal sax ñoom déjà nu ñu koy livrer ak naka naka la ñuy def ba livrer quantité boobu te fi ne nii nit ñaa ngi teg seen bët donc bu fekkoon lu ñu bëggoon a def la ci dul noonu it te ñu tàmbali ko ñu juuxu won ni lii du yoon dañoo war a dellu gannaaw rectifier mhm. président nag mën na ko bañ yëg parce que moom am nañu ku ko jox ki ko jox peut-être xaj na moom moo deful la war a def. ba ñàkk yëg bi sax est-ce que bi euh, euh, bu fekkee yëgu ko erreur la. waaw parce que nag quand même comme ni nga ko waxee léegi loi loi de réhabilitation. bi ko jox mhm. euh, loi boobu maanaam bu njëkk dañu départager woon distribuer woon les responsabilités mais tey loi bi tey moom moom la jox responsabilité entière lépp lu ci am moom mooy répondre amatul keneen parce que moom moo ko demandé. assemblée jox ko ko soo ko demandé ñu jox la ko nag da ngay assumer donc lii mu lii xam ne moo tàmbali nii bu ko fre bu ko freiné wul ci kawam la jëm ci kawam la jëm te xaj na peut-être loolu doon yeneen. kon nag c'est pas trop tard de rectifier parce que demaguñ fenn comme ni ko waxee rek liñ di dem bareegul tàmbale nañ loo xam ne baaxul dañ koy dañ koy rectifier bala moo sori waaw ah, loolu rek la. ngeen euh, importateurs yi nan ngeen di dundee. Euh, état d'urgence couvre-feu ak seen liggéey parce que am na dëkk yoo xamante ne nii bu ci mel ne Chine euh, da ngeen ko soxla bu baax a baax mais dëkk yooyu tey gis nañu ni dañoo nërmeelu ndax jàngoro ji. dëgg la moom kay booy xool ñëpp lii ñëpp di dund rek la ñëpp di dund la commerçant yi dund aussi pire que ñëpp parce que commerçant moom boo ko téyee ni ko doo voyager doo dem euh, lijjanti ci say affaire xam nga xaw nga ko tënk waaye nag foofu moom même bu ñu la téyewuloon sax ni la bul dem te nga xam ni risque la feebara nga fa xaalis warul jar bakkan donc da ngay toog ba mbiri mbiri sans euh, wàcc jeex nga soog a dem fa dem waaye boo boo toppee nag sa bëgg-bëgg ba gis ni fii kat risque nga fa mën nga faa jëlee jàngoro nga dem jëli ko fa lor sa bopp lor sa njaboot loolu yaakaar naa ne alal jaru ceeb la ñuy dundee mais am na yeneen produits alimentaires yoo xam ne tamit dañ koy soxla ci wàllu weeru koor gi te koor gi instant bi mi ngi egsi mm-hmm. est-ce du tar parce que nag buñ ko waxee dañu naan am na ñoo xam ne dañuy yokk dañuy taw mais bu ñu gisee ni ñu ngi dugg ci koor gi ak situation bi di est ce que dem ci yenn rupture ay yoo xam ne dañu ko gisati ci marché bi non li fi nekk moom yaakaar naa ne ci wàllu li ñuy jëfandikoo ci koor gi mën naa bañ a am problème ñu mhm. yàlla dimbalee moom fii ak koor gi ak ba koor gi jeex man naa bañ am problème waaye nag dañu ñaan yàlla nag mbir mi réglé lépp dellu fa mu nekkoon balaa balaa yàgg parce que lii fi nekkit aussi euh, mu comme du dolliku te bis bu ne muy wàññiku bu yàggee yaakaar naan day moo tax dañoo war a yaxanal li fi ne moo taxoon may wax ni bu ñuy jënd lu mel nii waruñu ko jënde ci ci contexte bu mel nii ak ci ni ko jënde même bu fekkoon da ngay jënd sax jaar ko ci commerçant yi koy indi te ñu mënuñoo indi ceeb bu jóge bitim réew loolu ceeb bi fi des lañu bi fi ne ñu war koo bokk la war a jëlee cent mille tonnes pour man waroon nañ ko xoolaat. parce que li fi ne war nga xam nu mu toll war nga xam ñaata tonne la war nga xam pour ñaata mois la euh, léegi ñaata mois moo fi ne nga war cee jënd ak une quantité nangam nga war ci jënd cent mille tonnes dem denc ko pour jox ko ñi nga xam ne dañu néew doole man na créé pénurie bi. est-ce que léeg di ngeen liggéey ak euh, autorités yi euh, du commerce surtout ci wàllu boobu. donc autorités yi comme ni ma la ko waxee rek xam nga ñoom en quelque sorte ni ñu waroon a liggéeyee liggéeyewuñu noonu. bon foofu laay. dañu waroon na ànd di jaxasoo di di dem leen maanaam di di ànd di di di discuter di seet di tëral ay ay ay programme stratégie loolu moo ci am cest à dañu mel ni kii dafa kii dafa nekk fii kii nekk fii ñu ñu nekk fee di xalaat ñoom ñu nekk fële di xalaat. bu ñu àndoon nag nekk benn toog di discuter xool nan la ñuy def ba génn ci nan la ñuy def ba suñu autosuffisance ñu mën koo réaliser tey li ñuy waxtaanee ñu mën ko re ñu mën ko def yaakaar naa bu ñu ko doon def tey nëgë ni euh, mbir yi du demee ni d' abord boo xoolee suñ commerce bi en général surtout commerce bi yëpp en général dañ ko désorganiser mm-hmm. te commerce aussi waruñu ko désorganiser ba kenn mënu cee génn parce que bu fekkee dañ ko def kii commerce du mën a avancer du mën a réaliser li mu war a réaliser pour avancer parce que commerce doo fa toog éternellement ça veut dire que tremplin la da ngay def commerce ba mu yàgg nga réaliser lu la nga def industrie wala nga def fi agriculture wala wala mm-hmm. mais su fekkee nag ni dañoo bàyyi nit ki mu nekk ci cadre boo xam ne mënu cee génn di di liggéey à moo nekk ci commerce d'une manière moo nekk ci secteur u euh, ceeb bi nga xam ne moom la mooy ceeb bi ñuy importé te boobu risques yi dafa bari ndax li ñuy li ñuy li ñuy opération yi ñuy def mm-hmm. day demandé xaalis su baree baree bare te loolu amuloo ko état joxuloo ko da nga koy jëli ci banque yi banque yi garantie lañ lay laaj nga dem indi ko dugal ko ci marché bi boo xam ne yow da nga ci perte wala doo xam kañ ko koy jaay y a des frais de magasinage ay problème yu ci wàllu wax nañ ko waxati ko ñu saafara. wàllu problème yooyu euh, Covid bi ban gàllankoor la indi ci li nga xamante ne moo di seen liggéey bi surtout ci wàllu chiffre d'affaires euh, bu ngeen daan def importation yi affaire bi daan dugg ak génn bi fu mu toll nii lan la indi gàllankoor ci wàllu chiffre d'affaires. seen booy xool euh, dafa ralentir bu baax a baax a baax ndax. booy xool li taxoon nit ñi di dépenser. mooy yenn xew yi yenn euh, cérémonie yi loolu yëpp amatul donc daanaka ku li nga yor da koy sakkanal. donc amatul dépensé comme ni ñu daan def bu njëkk te dépense boobu moo daan tax mbir yi circulé nit ñi ku ne a dara léegi kenn dépensé tout dara ku li nga yor yaa ngi parce que xamoo kañ la affaire bi jëm donc peut-être booy dimbali sa njaboot ngay dimbali wala ñi la jege mais yenn dépense bari daal amatul donc loolu moo tax aussi activités yi nam daan doxee doxeetuñu nit ñi xamal tamit ni ci marché Sandaga euh, police wàcc na fa yàq ay cantine yu bari yoo xamante ne ni secteur informel bi ñoo ko moom ñooñu seen jaaxle nag mooy euh, jamono ji euh, fi ñu toll nii tey buñ leen yàqalee seen njaay ana fan la ñuy jëlee li ñuy dundee te lan nga gis ni tey euh, autorités yi ci wàll woo war nañ ko jàppalee ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy jóg ko daan ah, xam nga boo xoolee loolu ñu yàq noonu parce que aussi ay cantine dañu teg ci kaw des fois ci marché yi dañu bàyyi aussi ñu teg di teg di defee n'importe comment ba nit ñi sax bu ñuy dox duñu am fu njaar ba nag ñu ni dañoo bëgg dégager oli yi dégager tali yi fi ñu daan teg ay bagage ci kaw tali bi ñu dindi ko loolu du Sandaga rek Sénégal yëpp la fépp la def noonu mm. région yi sax bàyyiwuñu leen fépp fu nit tegoon Euh, place wala nga teg fa taabal wala nga teg fa cantine te waroo koo far dañ koy daj. même boo ko tabaxee dañ koy toj lan nga gis comme solution. Ah? lan nga gis comme solution parce que ñoom seen seen seen seen mooy jamono jii ni euh, bu ñu yàqee seen bërëbu liggéeykaay. du ñu war a dem fu ñu war a liggéey. ah solution bi xanaa ñu waxtaan rek. waxtaan bon euh, seet nan la ñuy war a mën def pour recaser leen parce que aussi ñoom it tabax nañ fi ay centres commerciaux ba tey mais bu ñu leen ñu dem centres commerciaux yi ñu ne du ñu dem parce que bu ñu fa toogee kenn client du fa ñëw mais léegi nag li ko li taxoon client daawul ñëw jëlee nañ ko fi mooy ambulant yi nga xam ne dañ daan nekk ci mbedd mi di car client yi léegi nag comme euh, euh, jëlee nañ ñëpp ci mbedd mi léegi dañuy obligé ñëpp dem ci centres commerciaux yi suñ demee ci centres commerciaux installé moo pour sécurité kii jënd aussi bu ñëwee jënd en sécurité dem yoonam que loolu moo ci topp te loolu bu ñu ko defee yaakaar naa